أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي أن تغيير كتاب التوحيد ci buntab ñaar fukkeel ak benn ba tey muy baabu ma jaa fi himayatil mustafa janaaba tawxid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk ñu ngi tolloon ci aaya laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum ñoo ngi tolloon dars bi passé ci baatu xarisun alaykum foofu lan tolloon mu ne ci aaya bi borom bi subhanahu wa taala mu ngi ci xamal di ñu jàngal ne yonent bi ku xër la ala hidayatikum ci jubal leen yéen jullit yi lépp loo xam ne yonent bi bu ko waxoon ngeen jub effort boo xam ne bu ko defee ngeen baax yonent def na ko xarisun aleykum ala hidayatikum ku xër la moom yonent bi ku xëroon la ku xër la ci jullit yi ñu tegu ci raay bi wa wusuli nafi ad dunyawiya wal uxrawiya ilaykum waaye ku xëroon la pour lépp loo xam ne yiw àdduna la ak yiw àllaaxira mu yes ci ngeen jot ci loolu moo tax ngeen dégg yenn saa yi mu ne bi ma yàlla yónnee dama mel ni ku ñëw ci jamonoy nawet soo bàyyee ba mu nawet nga dem ci àll bi nga taal safara ci àll bi gunóor yi ni ñuy def gunóor yëpp dañuy daw ñëw ci safara si waaye buñ ñëwee ndax dañuy taxaw di jaaru dañuy def mu ñëwee dañuy dugg ci biir yonent bi nee na man nag la yàlla yónni pour ma taxaw bu kenn dugg wa kuntum ala safa hufratin min an naar fa anqazakum minha yéen ñëpp yéen a ngi woon ci paxu safara yàlla bi muy yónni yonent dafa ñëw nit ñi fekk nit ñaa ngi bëgg dugg ci safara yonent bi takku di buux nit ñi daan leen déedéet du fii sallallahu alayhi wa sallam ku sonn la moom yonent bi pour nit ñi jot ci yiwu àdduna waaye ak yiwu àllaaxira moo tax mu ne jëlee na ci abizar radiallahu anhu wa ardaa qaala mu ne tarakana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wa ma tairun yuqallibu janahayhi fi lhawa illa wa huwa yuzkiruna minhu ilman axrajahu tabarani abu zarin il gafaari nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam day bàyyi lu ñu dara lépp la nu leeralal jàngal na nu lépp même picc mu taxaw ci kaw asamaan sab ba ñu dégg yonent bi wax nañu picc mi li mu wax balaa muy génn àdduna waaw yonent bi bàyyiwul dara lépp la jàngale kon ñun ñëpp war nañu laaj nit ñu am yonent bu mel nii jàngale lépp kon naka la jullit ñi mën a sànq ginnaaw yonent bi réer nii comme ça te Abu Zar nee na picc mu taxaw sax picc daal di sab dem yonent bi wax na picc bi lu mu wax yonent bi Abu Zar nee na yonent bi bàyyiwul dara benn yahud ñëw na ci benn saxaaba ne ko waaye seen diine ci moom lépp la jàngale mu ne ko bàyyiwul dara lépp lañu yàllante bi jàngal mu ne ko jàngal nañu ba jàngal ñu duus soo fay dugg nooy duggee sooy génn nooy génnee génnee boo nekkee ci biir duus bi noo fay toogee mbokk yi diine ji daa jàngale ba jàngale yaag sa soxna ci kaw lal na ngeen war a tëddee kon diine ji bàyyiwul dara lépp la yonente bi jàngale su ma doon joxe misaal dama naan fii nu toog ci biir jàkk ji kenn ku nekk ci ñun na posé benn question mu laaj ndax mbir mi lislaam wax na ci wala wax ci ñu essayé ñu xool
seen mbir moo xam ne islam waxu waaw ci suñ biir dund kenn ku nekk ci ñun na seet benn mbir mu laaj ndax waaw lislaam wax na ci lii bismillah nañ essayé benn waay benn waay dégg na loolu rek mu daal ne borom xam-xam waaw saaku fëri ñaata kilo la voilà moom fu mu yóbbu wax bi saaku fëri ñaata kilo la ustaas bi doon tafsir daal tëj téere bi ne ko xaar ma yow daa dem ci cour bi ne boulanger bi saaku fëri ñaata kilo lay doon mu ne ko nangam mu ñëw daal di toog ne ana ki laajoon mu ne ko mun ne maa ngi nii mu ne ko nangami kilo la mu ne ko amee lu tax bi ma la ko laajee tontoo mu ne ko damaa demoon laaj ko ahla zikri yàlla nee na bu ñu la laajee loo xamul fas alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun ci ahla zikri laa demoon ñu laa demoon laaj ñu la laajee loo xamul yàlla nee na nga laaj ñi ko xam mu ne gis na mbokk yi diine ji dafa jàngale ba jàngale booy sol dàll ban ngay njëkk sol booy simi ban ngay njëkk simi booy sol yére booy simmi booy tëdd booy yeewoo booy dugg ci duus boo génnee booy dugg ci oto booy dugg ci avion booy dugg ci bato booy génn sa kër booy lekk booy naan boo bëlee boo tisoolee la hawla wala quwwata illa billah ah boo feebaree booy ziyaara ji ko feebar bu nit deewee bu nit juddoo nuñ koy tuddee bu ñu deewee nuñ koy roobee bu ñuy may jigéen nuñ koy takkee bu ñuy may góor jabar nuñ ko koy joxee dina ci bàyyiwul dara moo tax islaam aw dundin la lu nit di dund da nga koy def ay dund nooy toogee sax lislaam wax na ci boo toogee bay jug sax lislaam wax na sooy wax lislaam wax na nooy waxee booy lekk wax na nooy lekkee xoola xale bi ñëwoon fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam di lekk mu ñëw rek dugal loxo càmmuñam yonent bi ne tepp tey ci loxo bi ne ko yaa gulaam yow xale bi mu xool yonent bi yonent bi ne ko samilla way lekk da ngay wax bismillah avant bismillah ñaareel bi mu ne ko wa kul bi yaminika lekkeel sa loxo ndeyjoor troisième mu ne ko wa kul mimma yadika lekkal sa kanam wala loolu wala léegi nag naka la julli mën a réer lii lépp
bañ ko jëfee xamuñu lii lépp nga gis jullit boo xam ne dund na ba dee xamul lii mu ngi mel ne kuñ bàyyee alal rek te jëriñoo ñun ndono lañ ñu bàyyee ndono ndeysaan ndono ndono waaye jullit moom lépp lu muy def ci àdduna am na lu muy wax te wan nañ ko nu mu koy defee jàngal nañ ko nu mu koy defee ay xoolal tey daanaka boo taxoon ci Sénégal ngay xool lislaam doo ko xàmmee doo ko gis ndax dañoo bàyyi lislaam kër gu nekk nit ñu nekk topp seen tarixa nit ñu nekk topp seen aada da ngay ñëw ci joolaa yi ñu ne la ñun nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci séeréer yi ñu ne la ñun nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci tukulóor yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci olof yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci soose yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci bambara yi ñu ne la nii la ñuy génte nga ñëw ci saraxule yi ñu ne la nii la ñuy génte
colon bi bàyyee ñu fi ay jéem ah colon bi tubaab waaw waaw bàyyee ñu fi ay jéem tubaab bi tamit ñëw indil ñu nu muy génte léegi te ñii ñëpp
rek la yeneen ko waxoon na leen nu nuy ngéntee ñoom ñëpp ñu jàngal leen ko mu nekk benn waaye ñoom ñëpp ñu bàyyi la yonent bi wax ba pare léegi lu gën a garaaw mooy dañoo bàyyi la yonent bi wax ba pare ñu ne yonent bi bàyyi nañ ko nag waaye ñu ngi sa ginnaaw dégg nga de li nga wax bàyyi nañ ko nag waaye nag nag ñu bàyyi xel ñu ngi sa ginnaaw wala loolu mooy waxi la loolu mënu nekk yonent bi amul lenn lu mu bàyyi lépp la nu jàngal bàyyiwul dara dara dara abu zara nee na wama tair nekkul picc yu qallibu janaaxayhi buy wëlbati ay laafam sax fil hawaayi ci ngelaw li illaa lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yazkuru lana minhu ilma yonent bi wax na ne picc bi sax nangam lay def ni muy wëlbatee laaf yeeg ni muy jooyeeg ni muy sabee yonent bi wax na saxaaba yi picc mi lu mu wax nee na qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na maa maa baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaacidu min annaar illa waqad bayyantuhu lakum hadisun ibnu mas'ud rawahu imaamu shafi'i fi risala min hadisu almatlab ibnu hunt mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul lenn lu leen di jegeloo aljanna di leen soriloo safara lu dul man yonent bi leeral naa leen ko amul benn mbir buy tax jullit jege aljanna bëgg yàlla bëgg aljanna lu dul yonent bi jàngale na ko amul lenn luy dugal nit safara lu yonent bi tere la kon kay léegi bu nit ñi bëggee dugg aljanna lu ñu war a def topp yonent bi kon bu nit ñi bëggee sori safara nu ñuy def mais xoolal tey woote yi ni mu bare ah ku woote fii may wax ak yéen am na benn waaye boo xam ne fan yi moo feeñ day julliloo nit ñi di leen di leen sow nii sow fii lay julliloo nit ñi Hmm? góor gi nee na na Sénégal la nekk mi ngi fii ci Texaco bi fii ci Texaco Texaco bi fii ci Petit Piquet fii Texaco booy dem caare mu ngi foofu carte visite yi mu yor xam nga lu mu ci def rasulullah nee na yonent yàlla la ba pare loolu sax doy na loolu sax doyul waa xam nga lu ci yéeme mooy ci saboteem bu muy sabote tur boobu muy rasul bi ci sabote bi mu koy sabote xam ngeen am na mballaa yoo xam ne dafa am rasul xam ngeen mballaa yi ma yor boo ci toogee day dafa am ay weñ yu ron yu tudd rasul nee na loolu mooy turandoom ku ko indi mu jënd ko nit ñi dañu dem di for weñ yi di ko indi mu koy jënd nee na yooyu yooyu turandoom la rasulullaay la ñooyu rasulullaay la
rasul
buy julli fii lay julli rasul rasul moom mu naan rasul sunuy sunuy mbokk jullit yu nekk ci benn école bu tudd Baabu Salaam allahu salaam
oustaz moo doon nuyu léegi fa la jógee ñooñu dem di waxtaan ak moom di ziyaare ko pour di ko laaya biir naan ko yow gis na ni booy julli yaa sa mbooloo la nii ngeen di jublu te xam nga ni fii du xibla mu ne leen jubluwuma ko de yéen ci seen école bi laay jublu ñooñu ñu ngi ci ginnaaw xam nga mu ne leen jubluwuma sow de yéen ñooñu comme ay borom xam-xam ngeen ci yéen laay jublu loolu la leen tontu kon ngeen xam ne te lu yéeme lu yéeme ci Sénégal mooy ku woote rek am ay taalibe ku woote rek nit ñi topp la parce que nit ñi gëmuñu lu dul lekk te ñi woote yàpp lan yor yàpp Sénégalais yi du ñu gaaw a lekk yàpp lu dul tabaski ak tamxarit ak korit te waa ji moom bu fekkee bis bu nekk sa buntu kër nag dee taw mu ngi nattale xar dee bu guddee nga rey ay ginaar gaay yi seen da seen ngay bëri ay taalib léegi rek comme dañoo xiif jànguñu yoruñ gëmuñu yàlla loolu mooy suñu problème li am importance daal mooy ñu xam ne yonent bi moom jàngale na lépp leeral na lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul lu mu bàyyi lépp la leeral nee na maa baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaacidu min annaar illa waqad bayyantuhu lakum amul lenn loo xam ne day jegeel nit aljanna di soreel nit safara lu dul leeral naa leen ko waqad bayyantuhu lakum leeral naa leen ko mu ne biñ ñëwee buñ ñëwee ci wax ji mu wax ne bil muminina raufun rahim danañ ak fekk borom bi ne wax fit janaaxaka liman ittabaaka min almuminin fa in asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun danañ fekk aaya yi yàlla ne yonent bi bil muminina raufur rahim moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci way gëm yàlla yi ndeysaan dafa leen dafa ñeewant ci ñoom sadidul rahma dafa tar ni mu leen yërëme yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëgg jullit yi xoolal waa ji ñëw saw ci jàkka ci ku saw ci jàkk bu la ree da nga dem safara yonent bi bi gaa yi jógee bëgg a dóor waa ji yonent bi la bàyyi leen jàmm bàyyi leen ko ñu bàyyi waa ji yonent bi ne ko fii kenn du fi saw fii place bu sell la bu set bu set bu sell ni ko yonent bi teeroo ak ni ko gaa yi teeroo du benn mu ne yàlla yal nag ma yërëm man ak yonent bi bul yërëm keneen yonent bi ne ko yaa ngi xatal lu yaatu mu ne lan moo yaatu mu ne ko yërmande yàlla dugalal ñi say mbokk la waa jooju yonent bi bu ko bàyyiwoon ñu rey ko fu mu jëm keneen ki dafa naan sàngaramaan ci kaay di ko dóor ay daal di ko xas yonent bi ne laa tuinu seytaan ala axiikum bu leen dimbali seytaane ci seen mbokk kon yonent bi yërmandi la pour xeet bi dafa yërëm xeet bi beneen aaya yàlla moo ko tagg ne ko waxfid janaahaka liman ittabaaka min almuminin yow yonent dangaa wàcce say mbagg wàcceel say mbagg ndax jullit yi la topp suñ la moyee nag bañ laa topp topp leneen fa in asawka buñ la moyee faqul inni bariun mimma taamaluun man de ku dañ laa ci li ngeen di jëf dégagé naa ci sama responsabilité man moom li ma yàlla yónni woon leeral naa ko léegi nag yéen bu ngeen defee leneen su leen keneen woowee ngeen wuyu ji ko inni bariun mimma taamaluun man ku dañ laa ci loolu ngeen nekk yéen aaya boobu mu ngi suratu shora 216 mu ne wa hakaza mbokk yi naka nii amarahu taala fi hadihi al aya al karima ci la ko yàlla digalee ci aaya yu tedd yi wa hiya qawluhu mooy wax ji yàlla wax ne fa in tawallaw su ngeen wonee ginnaaw amma jittu bihi ci li ma indi ngeen bañ koo jël min shariati al mutahara ci sharia bu laab bu leer bi alkaamila assaamila bu matte matale bi lii ma yàlla yónni mu mat matale leer nañ ma jàngale ko bàyyiwuma ci sa xar su ngeen dummóoyoo bañ koo jël fa in tawallaw faqul xasbi allah waxal man yàlla doy na ma képp koo jël képp ku wuy siwul képp ku ma toppul man yàlla doy na ma yàlla doy na ma ci seede ne jàngale naa ko yàlla doy na ma seede ci ne leeral naa ko yàlla doy na ma seede ne ci jottali naa ko xasbi allahu yàlla doy na ma ban yàlla laa ilaha illa hu amul benn buur bu ñu war a topp ku dul moom alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wakkil moom laa jox samay mbir wa huwa moom yàlla rabbul arshil azim mooy borom gongonaay gu mag gi lii aaya yi yàlla subhanahu wa taala moo ko tagge yonent bi mu ne lii day wane ne li annahu azamu maxluq azamu maxluqaat day wane ne yonent bi moo gën a màgg ci mbindeef yàlla bu ñëpp moom yonent bi xool ni ko yàlla taggee yàlla taggewul benn yonent nii ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yonent moomal ma yàlla jox melokaan yi melokaan yu màgg yi hadihi al awsaaf allati wasafa allahu biha rasuluhu melokaan yi yàlla jox ko ne xarisun aleykum laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufur rahim melokaan yëpp yàlla yonent bi la ko tàggee amul keneen moom yonent bi kon su fekkee yàlla tàgg na ko ne nii la mel kon foog mu bàyyil ñu xeet wi ndono ndénkaane bu ñu war a topp ginnaawam loolu moo tax mu dénkuñu mu ne ñu mu waar ñu moytandikulooñu bokkaale yàlla subhanahu wa taala mu ne nañ ko bokk nañ ko moytandiku ak lépp loo xam ne day ubbi buntu bokkaale ndax bokkaale huwa aazamu zunub mooy bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi yàlla du ko baalaate te moom yonent yàlla nee na moom dafa bëgg daf ñoo bëgg daf ñoo yërëm suñuy problème sax daf ko def problème moom yonent bi suñuy jafe-jafe daf ko métti parce que kon dina bëgg ñu dugg safara su yonent bi bëggule ñu xiif bëggul ñu mar bëggul ñu fanaan biti bëggul musiba dal suñu kaw est ce que kon dina bëgg ñu dugg safara loolu moo tax mu leeralal ñu lépp jàngal ñu lépp jàng nañ gis nañ ñaari xadis yi sànq nee na même picc mu sab wax nañu lu mu wax mu ne amul lépp loo xamante ne daf leen di jegeloo àjjana lu dul dafa wax jàngal naa leen amul lu leen di yóbbu safara lu dul soriloo naa leen kon yonent bu mel nii du gis bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi gën a bon nga xam ne ku ko def dugg safara mu ne patt noppi bañ ci koo jàngal loolu moo tax mbokk yi mu moytalikoo mu moytandiku looñu moom yonent bi lépp lu ñuy yóbbu ci bàkkaar yi won yooyu yu mag yooyu ci màggal ay bàmmeel yu xam ne bàmmeel kenn warul màggal bàmmeel kenn warul jaamu bàmmeel waxuñu kenn warul siyaare ji bàmmeel de dañu ne kenn waru ko màggal ndax nit ki dee na ba pare moom mënatul dara Sénégal moom gëmuñu ne ku dee mënatul dara te bis bu nekk ñu joxe ci misaal ma ni yenn saa yi nit day dund sax du mun dara waxuma laa ku dee te war nañ xam ne ku dee mënul dara léeg-léeg da ngay dégg wax yoo xam ne wallaay war naa jur reetaan yenn saa yi da ngay dégg Sénégal jàmm rek moo fi am ndax ñi ci tëdd du ngeen dégg loolu est-ce que yéen Sénégal jàmm fi ne yéen ay sénégalais ngeen n'est-ce pas est-ce que jàmm moo fi nekk métti na de ak ngeen ne li ñuy dund du jàmm métti na loolu la te ñëpp a ko wax ñëpp a sonn ñëpp a xiif kooku bi sutura lay dundee ak sag nit ñi lekk tuñ ba suur naanatuñu ba mar tëddatuñ ba nelaw de yaa loolu mukk seen dat koo gis mu ngi tiit loolu yàlla waxoon wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsi min al amwaali wal anfusi wa samaraat aaya boobu moo këpp suñu kaw yooyu ñe yooyu yàlla tegale yëpp moo këpp suñu kaw ñun nii xoolal dëkk boo xamante ne kenn bëggut fa yeewoo wala ngeen doon xam ne fii kenn bëggu fa yeewoo nañ fi doon rangale ay billet doo gis mukk ne noonu man demuma de damay toog ñëpp ay dem wala jigéen ñi sax bëgguñu fee yeewoo jigéen ñi paa yi sax xam naa ne ku leen jox ay billet ñu dem lu tax loolu moo tax ñu bàyyi xel ne yonent bi daf ñuy tere màggal bàmmeel taazimul qubur màggali bàmmeel wal xuluwu fiiha ak di ëppal ci bàmmeel yi dem ci bàmmeel waroon ko ziyaare ñaanal ki fa tëdd nga dem di këpp ci bàmmeel bi di ko yuuxu di ziyaare di ñaan bàmmeel bi loolu dañ ko tere ci lislaam wasalaatu indaha ak di julli ci bàmmeel bàmmeel kenn du ci julli bàmmeel kenn du ci jàng alquran bàmmeel kenn du ci julli waaw da ngay gis tey bàmmeel boo xamante ne dañ koo defar ba mu rafet waxutuma ñu defar ko loolu ba mu rafet waaye ñu daal di fay tabax 16 16 wala ñu teg fa 16 canapé ku ñëw toog génn sa kaamel di ñaan bàmmeel kenn ci jàng alquran yenn saa nga gis bàmmeel boo xam ne dañu ko defar ba mu rafet ci côté bi ñu lal ay sijaada ku ñëw toog julli bàmmeel yonent bi nee na kenn du ci julli la taj'alu qubura buyutakum maqabir yonent bi nee na bu leen def seen kër yi ay bàmmeel bàmmeel kenn du ci julli kenn du ci jàng alxuraan kon tey ñaata yoon ngeen dem armée ñu suufa rek dañuy def nañ jàng faatiha fukki xulwa allahu ak benn wala ñeen fukki xulwa ñaata yoon ngeen di dégg loolu
Kalau kami minta katanya
gis nga ñaata yoon ngeen gis loolu wala ñu ne jàng leen inna anzalna jàng leen inna fatahna jàng leen suratul mulk ci ay armeel ci ay armeel te yéen dina ko tere te yéen bi tere kay jullit dañ ko war a bàyyi wala waaye yonent bi tere ba pare jullit ñi naan waaye nag waaw bu ko yonent bi tere te te sëñ diw def ko nag sëñ diw ak yonent bi la ñuy tollale sëñ diw ak yonent bi dañuy tollale léegi yonent bi ne bu kenn def diw ne nañ def ñu ne léegi ñu yonent bi wax dañ koy bàyyi nañ wax lu diw wax ba pare ñu ne ñun ay jullit lañ allahu akbar mu ne wa naxu zalika ak yeneen yu mel nii mimma yusilu ila ibadatiha lépp loo xam ne daf ñuy yóbbu ñuy dem bay jaamu ay bàmmeel yonent bi daal tëj bunt boobu loolu moo tax ñu tere ko kama taqaddama mu ne comme ni mu jiitoo ci dars yi passé mu ne wa kama sa yaati fi ahadisil baab ci bunt bi mu ne am nay xadis yu ñëw mi ngi ci ginnaaw ci dars yi di ñëw danañ ko gën a jàngat gënañ koo leeral li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kon mbokk jullit yi waxoon nañ démb wax barki démb ne alquran bi aaya yi hadis yi pour ñu xam fu nuy teg suñu tànk pour ñu xam ni nuy dundee alquran bi ñëwul pour nekk téere barkeelu ñu koy raay ci sunuy jëf wala ñu koy takk ci sunuy ndigg wala ñu koy takk ci sunuy tànk wala ñu koy jàmb rek di naan déedéet alxuraan ñëwul pour loolu alxuraan ñëwul pour nit dee ñu koy wàccel kaamil alxuraan ñëwul pour ku tiit daal daw jàng alxuraan alxuraan ñëwul pour ku ñuy audité mu ne kaa leen wàccel ma kaamil alxuraan ñëwul pour kër gu ñu tabax ba pare kaa leen wàccel ma kaamil alxuraan ñëwul pour loolu alquran dafa ñëw yàlla moo ñu wax lu tax mu ñëw kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur téere boo xam ne dafa ñëw man yàlla maa ko wàcce pour mu génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci kay leer na téere bi naka la ñuy génne ci lëndëm naka naka la ñuy génne ci lëndëm mooy ñu topp ko jàng ko gëm ko suñu waxee ñu def suñu teree ñu bàyyi mais tey téere ñu téere njabar lañ ko def téere njabar njabarukaay waaw téere barkeelu téere njabar waxoon naa ko Casamance ci benn juma ñu bëgg ñoo duma benn waaye dafa ne ma ndax alxuraan dinañ ci bind gàllaaj ma ne ko déedéet fekk bindkatu gàllaaj yaa ngi toog ñoom ñëpp seen bët yi xonk ne ma dañ ci benn gis ka dangam nag wax ko sonn ma ne ko bu ngeen doon bind alxuraan kese sax jox nit mu naan wala mu sangu baax na waaye bu ngeen bindee pare da ngeen di jël póon wala ngeen jël péjjën wala ngeen jël deru xaj wala ngeen jël deru bukki wala ngeen jël sawu nit wala ngeen jël dem àll ba nit wala ngeen jël ji mbaaxu jigéen ngeen boole ko alxuraan téere ngi ni toog genn wàll gépp loolu ngeen di def alxuraan bi dañ koy mbubboo kese du alxuraan da ngay dégg ñu ne kii day bind moom sëriñ bu baax la alxuraan lay bind kenn du bind ci alxuraan ñoom ñëpp dañ koy mbubboo mi ngi mel ne trafiquant drogue buy jaay mburu da koy mbubboo mais dafa am lu nekk ci ginnaaw mburu mburu bi lan la mooy drogue bi noonu rek la mel fu nekk nii ñi def katul bon yëpp da ngay gis ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp mais xam nga lu ñuy mbubboo salon la salon la ñuy wër salon salon coiffure wala restaurant bu ñuy jaay restaurant dañuy jaay ay fekk dañuy jaay seen bopp mais restaurant bi la ñuy ubboo parce que bu ñu waree bu ñu xëyee dañoo war a xëy dem bu ñu xëyee togg kilo ceeb nga wax ne nit ñi ay nit di dugg nga def ne dañuy añ fekk dañuy jaay seen bopp mais añ bi la ñu ubboo bu xaaba yi ngeen di gis dañuy mbubboo alxuraan mais du yemuñ ci seen téere yi ubbi leen ko ngeen xool wallahi alazim bu may ñëwaat fii suba dinaa leen indil téere boo xam ne ni sijaada bi la topp waaw sijaada bi ma topp ñaata mètre la feuille bi noonu la toll est-ce que ëppul sijaada bi wallahi suba dinaa ko indi la hawla wala dañ koy bugg gëmuñu ko xoola nit lu muy jëlee feuille 3 mètres wala 2 mètres ci yaatuwaay ak guddaay nga bind ci alxuraan ba pare nga jox ko nit nga ne ko da nga ciy tëdd fanaanoo ko bërsëg nga tëdd ci comme ni ngay tëdd ci sa dara jullit dina tëdd ci alxuraan moo tax man ci koy wax ak ci ci wax ak ci koy wax yëpp waa jiñ ko jox daf ma woo téléphone ma ñëw lu tax ma jot ci bi ma ñëwee mu jox ma kayit gi ma ne ko wax sa kayit gi rëy na de mu ne ma ubbil bi ma ko ubbee dama tigg ma ne ko lii nag mu ne woon sama benn sëriñ daal moo fi ñëwoon jox ma ko ne naa ci tëdd ma ne ko gis nga boo tëdd boo ci tëddoon ni nga waree ci mbir mi non parce que ñu bëri fi dañ lay jox dara ne la sangoo ko wala takkal wala naanal nga pour yow la fekk du pour yow pour ñoom la ma ne ko gis nga boo ci tëddoon ni nga waree kay ji bu bët set noonu la lay waree moom noonu la lay waree lu mu la laaj nga jox lu la dem la war a loolu ngeen di gis nii fii muy am nit koo xamante ne amul sago ci sëriñam bu sëriñ bi tis sojee mu dee bu sëriñ bi lu mu ko wax mu def mu def day romb ndey ma bàyyam bu leen nuyu di yuuxu fële ci kële du hasard noonu la ñuy def xale jigéen yi dem ci ñoom ñu leen di détourné loolu lay nag leer la di leen def loolu kenn xamul yenn saa yi ñu takk leen da ngay gis xale bu jigéen bu rafet bu la ziar si rek nekk sa jabar waaw xale bu jigéen bu la ziar si nga xool ko mu rafet nga dugal ko ci soxna yi nga gis ko ci am ay 15 ak 13 ak 14 ak 60 est-ce que loolu moo doon diine kon ay mbir la yoo xam ne loolu la ñu aaya di jàngal loolu la ñu xadiis yi di leeralal yenent bi alayhi salaatu wasalaam diñ ko moytandikuloo pour ñu xam ne lii mooy diine lii mooy li wér ñu mun a topp yenent bi alayhi salaatu wasalaam def ko suñu roy waaye àdduna ak àllaaxira ñu mun a texe àdduna mucc àllaaxira dugg aljanna firdaws yàlla ñu ko yàlla defal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu